Sénégal gépp di ko méttit lu li xew ci ensemble bi ensemble bu ne am na fi depuis indépendance mais li am ah loolu naqari na ñëpp amul nag ba ci opposition bi sax dalee na métti ah képp kuy sénégalais li xew ci ensemble ba intéressé wu la neexu la ndax bu ñëwee pencu ndewu réew mi ndewu réew mi toog ak kilifa réew mi ñu gis ñii di yéeg ci taabal yi. ñii di buddi micro ñii di def ay golo ñii di ñii sinap mais mégul sens li ñu bëgg ci réew mi mooy ñu won xale yi loo xamante ni bu ëllëgee dinañ ko jëriñoo li xew keroog amul benn njàngat bu ci xale yi di def bu dul violent te ñun bëgguñu loolu bu nu sañoon buñ ñee pencu réew mi képp ku nu fay toogal day wone bon exemple pour xale yi mën ci jàng pour bu ëllëgee bu nu ñëwee mën a respecter citizens u Sénégal yi mais li xew keroog ci ensemble kenn rafetloowu ko métti na ñëpp. dafa njëkkas taxaw ni li waral sama kàddu yi ndayam loolu Sénégal yëpp la saaga Guy Marius Sagna mais nag gis nga sénégalais yi dañu war a xool ku ñuy fal sénégalais mën na mën na mën na mën na kalabante yaa Guy Marius Sagna guy gu rëy gi kenn mënalul dara laa wax. sénégalais yi ñoo koy génnee ensemble ndax du nitu ensemble nitu àll la. bu toogee ñëpp toog mu taxaw naan li ma doon wax lii mooy ndayam yëkkati li ñuy voté xotti kayit yëkkati ko loolu du respect respecté wul kenn defuñu ko président Macky Sall de sénégalais ak yi lan ko def te dañoo bëgg a xam li tax Guy Marius Sagna yëpp sénégalais yi loolu la ñu bëgg a xam te nee naa la man maay créer marche boo xam ne Guy Marius Sagna day génn assemblée ba am nañ ci droit pencu ndaw réew mi la ñu wax ñu gis ku fa toog di ñu saaga mais am nañ droit ku ko mu génn dañ ko bëgg a génnee dañ ko bëgg a génnee moom Guy Marius Sagna mérité wul ensemble xoolal mais slève la jaam la nitu àll la xamul loolu ñu ko jox bàyyi pola wirul te il faut que sénégalais yi xam ni wirul ku taxaw ci ensemble di saaga nday yan yanu sunu mais loolu loolu sunu constitution la lépp lu fa am sunu constitution la il faut que sénégalais yi xool ñan la ñuy fal ndax xale yi ëllëg lii ñuy def neex na lool mais suba la ñuy wax suba pour xale yi lii ñuy xool nii day indil Sénégal xale yi di sadik violent bi di gën a bari te soxlawuñu loolu te genre Guy Marius Sagna gi loolu lay indil Sénégal te ñun bëgguñu loolu dañoo bëgg mu abal ñu ensemble nawloo wuñu ko soxlawuñu ko fa dañu bëgg mu démissionner ñun loolu rek lañ koy ñaan